di am mbégte bu baax ci laaj bi ma ndax keroog bi mu toogee fi naan liggéey bi bu mu laal suuf na ngeen ko taawoo booba ñun fi lañ fanaan di sédd café séddale café ñu ñoo doon joxe ndekki ñoo fi yendoo bernde mu ne liggéey bi bu mu laal suuf suñu borom jàppale ko ca loole moo ba liggéey bi egg bañ di ko intégré waata ñu ñëw fanaanaat fi biig am naa ci yëg-yëg bu mag nag démb sax mën naa ne samay ronkoon sax tuuru na ndax sant sëñ Muntaxa rek xam ne sëñ moom yàlla da koo gërëm moo tax lu mu bëgg rek suñu borom dina ko ci fekk si te jàng bi dafa doon jàng bu ko ñoro def ngir jullit yëpp def ngir murit def ko pour benn tarixa pour képp kuy wax baatu asadu an laa ilaaha rek boo ñëwee fi di fi jàng te bépp xam-xam boo xam dañ ko daan jàng bitim réew boo ñëwee Touba gi ñu kon lu sëñ Touba ci dëkkam bi ñëw na waaw ndax xam nga talabul xilmi faridatu ala kulli muslim wal muslima sàkku la ci bépp jullit bu bu jigéen loolu yonent bi sallallahu alayhi wa si si jamonoy yonente bi daana wax saxaaba yi lu leen jaaxal laaj leen ko ci yéen di tuuti ji mu Sayyidatuna Aysa te boobu Aysa ku néewoon ay at la waaye ñëpp moo leen jàngal nga gis ku mel ne Sayyidatuna Xadija gis ku mel ne Sayyidatuna Ummu Ummu Salamata ak ñooñu nga xam ne jigéen ñi saalihaat yooyu àndoon yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ay borom xam-xam lañ kon jigéen yàgg naa am wàccuwaay ci yoon ci diine islam dégg nga ma ne la ñun ñoo bañ koy teg xeeru première pierre ba sëñ naan liggéey bu mu laal suuf dégg nga man ne keroog fi fanaan démb fi lañ fanaanaat biñ koy uniqué loolu ñun dañ koy sant yàlla te barki dem lañ jóge Porokhane ñun ñun ñun waa axlu ko bépp xew-xew bu xew ci yoonu murid te ñu yëg ko dinañ tàngal kafe def ko addi Serigne Touba ci diine ji sax laay wax ndax boo demee Ndiassane fekk ñu boo demee Tivaouane fekk ñu fa boo demee Laayeen fekk ñu fa lépp na ngërëmu Serigne Touba rek lañ ciy sàkk fépp fu ñu demit ngërëmu Serigne Touba lañ fay sàkk Serigne Touba lañ fay liggéeya